lan axlan wasaxlan nana lan la yéen a kaay xëy fekk leen ma si enquête yéen a moom mi xëy bind ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la njiit réew mi Macky Sall ku gouvernement ngam di dund ba xolam sadd ubbil yéen a kaay bi yéen a bi di ñu xamal nañu fan yi ñu génn njiit réew mi Macky Sall ma nga woon ca Poutine de aha maa la ko wax ngir waxtaan ak moom lenn si ay soxlaam ci jamono jooju nag la ko xujjëk politique gi daal di sëkkatal may ñu ko dara jamono ji waxtaan na si crise bi nga xam ne moo am ci réewum Sénégal ba am ca Mali ak ba am ca Guinée loolee yëpp njiit réew mi Macky Sall yebbi na ko ci kanamu Poutine ma ne la ca telem nasaraan ya la ko waxee foofee sa France 24 moom la njiit réew mi Macky Sall yëkkati kàddoom yooyee de aha maa la ko wax ma ngay sàkk ci waa CEDEAO tam seen daan yi nga xam ne moom la ñu daan réew yooyee ñu daal di koy tegg diggante Mali ak Sénégal ku jëg politique gi nga xam ne ñu ngi doon kaas seen àq ak yelleef ak justice bu ñaaw bi nga xam ne moom la ñuy doxalee fii ci biir réewum Sénégal ak bu ñu sàgganee ñu jalgati li nga xam ne moom moo di élection législative yi njiit réew mi Macky bët réew mi ay charte lay doxee vox populi yéen a kaay tëll daan njiit réew mi Macky Sall yebbi na ay dëggam de aha maa la ko wax ca kanamu tubaab ya kay vox populi yéen a kaay tëll daan njiit réew mi Macky Sall yebbi na ay dëggam de ca kanamu tubaab ya wax na yenn jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci biir réew mi waaye tamit laaxaale na ci ku jëg politique gi nee ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci biir réew mi nekk ci ku jëg politique gi jàpp ne élection législative yi mën yi mënul am rek yaa ngi nax sa bopp njiit réew mi nee na saaga ak yu ñagas yu ñuy ci justice beeg yëpp a si yem élection législative yi moom amul kenn ku mën a dox seen diggante ak moom mu am dina am ci nii wala mu am ci naa njiit mi Macky Sall nee na élection yi faaw mu am juróom-ñaari sages yi nga xam ne ñoo nekk conseil constitutionnel ñooñu nga xam ne ku jóg politique gi mënuñ ci ñoom sa xool bu àgg njiit réew mi Macky Sall ma ngi leen doon encouragé de aha maa la ko wax nee leen bay boo ngeen doxal seen liggéey li ngeen di wax ci biir réew mi loolu la ñuy jëfee ndax si yoon dong ngeen ko teg amul kenn ku ci mën a dindi virgule njiit réew mi Macky Sall mag bi nga xam ne ku jëg politique gi defoon nañ ko sa nañ doon def conférence de presse de démb tamit ñi nga xam ne ñoo faree ci gi waa Benno Bokk Yaakaar Mimi Touré kii gaayam génn nañ def benn déclaration maanaam conférence de presse lañ doon def di tontu ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Yewwi Askan Wi amul luñ leen waxul nag Aminata Touré moom mi fi nekkoon premier ministre ci réewu Sénégal nee na keroog foofee sa place de l'Obélisque ki nga xam ne moom moo di njiital Pastef di Ousmane Sonko kaddu yom fa yëkkati du kaddu yu kilifa kaddu yu ñagas la fa yëkkati teg ko seen kaw te loolee nag bu nekkoon responsable bu ñëpp naw du ko def Ousmane Sonko ci boppam nitu fitna la bés bi le jour yéen a kaay tëll daan na ku jóg politique gi gannaaw seen manifestation bañ doon amal place de l'Obélisque si njiit réew mi Macky Sall tontu na leen démb foofee sa France 24 amul lum leen yekkul moom it njiit réew mi i Sall ba mu jàkkaarloog tubaab bi ma ngay dëggal ay waxam na ne waaye yeewi askan wi du ñu bokk ci élection maa la ko wax de ndax kan njiit réew mi Macky Sall lii la wax nee na liste yi nga xam ne respecté wuñ parrainage bi mënuñoo wax ba participer ci li nga xam ne moom moo di élection yi ndax charte réew mi ci la tëddee kon nag ñoom dañuy nangu ne duñu bokk ci yi ndax mënuñu see bokk dañoo jalgati charte yi jamono jooju ma ne la Ousmane nee na élection yi ku leen ko nar a xañ ñu xañ la jàmm de ma ne la Macky Sall nee na ñooñ duñ ci bokk alerte yéen a kaay tëll daan na waa man damay laajte njiit réew mi Macky Sall ban jàngat la def ban jàngat bu ndaw rek la def ci marche bi nga xam ne moom la waa yeewi askan wi amaloon ndax kat kàddoom yi mu yëkkati moom boo ko déggee da ngay mel ne kii seetaanul sax yëf yi looloo waral waaye Yewwi Askan Wi nee nañ na woon fa woon de dañ ko ciy biisaat ma ne la beneenu marche ñu ngi koy organiser te dina am fan yu ñu jëm yéen a kaay bi mel na ku naa ma papi bul dal wax ji neema la 17 bi nga xam ne moom la ñu dëgmal dinañ defaat beneen rassemblement bu mag woowaat askan bi yëpp ñu waat ñu daal di waxati lu leen gën a metti yéen a kaay bi biral daan na 17 juin 2022 si boppam moom la waa Yewwi Askan Wi woowaat seeni militant nee na ñoom ñëpp nañu dajewaat fa ñu daje woon même place lay doon même lay doon loolee jullik gi ba pare lay doon foofu sa place de l'Obélisque ndax préfet nag dina ko autorisé waaw wala déet loolooy wax militant yi nga xam ne ñoo fare si ASP mooy parti Moustapha Niasse ñoom da leen jiital Pastef di Ousmane Sonko yëkk ci place de l'Obélisque si mooy xasan seen xol bi metti na leen lool rawatina nag kàddu yi nga xam ne moom la jël teg ko si seen kilifa googee di Moustapha Niasse Ousmane Sonko amul lu mu yàkkul président assemblée nationale a 24 moom it daal di def benn émission bu mag yàq fa lu mel ne xemeeku jëg politique gi waaye gars loolu yëgaluñ ko seen yaram de mane la nee nañ ajuma bii ñu jëm kay li metti Macky Sall da leen di neex maanaam dañuy wàccaat ci mbedd yi woowaat jeunesse bi ñoom ñëpp ñu dajewaat même place ñu yëngalaat njiit réew mi Macky Sall si biir yéen bi nee na ku jëg politique gi wax naan élection du am ci biir réew mi ña nelaw élection yi moom bis biñ ci tollee xam na réew moom ci ay charte lay doxee maanaam dinañ ko amal ci nii wala ci naata mënuñu ci dara ba xam fu muy yem tir comme jamono jii ma nga sa kaso ba lan maa la ko wax de ma ne la article 80 moo dal ci kawam ay kàddu yu ñagas la daal di jël lal ko ci dorum njiit mi Macky Sall yéena kaay bi biral daan nañu menace menace menace démb njiit réew mi Macky Sall doon na menace ñi nga xam ne ñoo faree ci ku jóg politique gi de ma la kay kor Marème Faye démb amul lu mu leen yàkkul njiit réew mi Macky Sall nee na war nañoo bàyyi bu ñu waxee benn baat ñaar rek naan la amoon sa mois de mars loolee du référence de te laa amoon sa mois de mars moom amalaat fii ci biir réew bu Sénégal Le Quotidien yéena Sall gannaaw ba mu wooyee ba mu jekk suñu presse bi nekk fii si biir réew mi dem France 24 yëkkati ba ay dëggam njiit réew mi Macky Sall nee na waxuma la sax ay élection dina am ci biir réew mi wala du am waaye fitna si boppam fitna bi gën a ndaw njiit réew mi Macky Sall nee na mayetu ko kenn mu koy yéem a woote ci biir réew mi wala mu ko fii amal yaa Cheikh Baba Lamine Diasse wër rër rër réew mi de buñ sàgganee ci geer la jëm lii kenn attunu ko ba